arbiyar bana amin cikin karo fan hormo kamal amin amin nah, la iya, baraka ba ya, yo baraka ko ya. ko itali la ko le mu ne ya. content na ci programme fa wone ci felam rek ak mbik gitu. jerejef jerejef ah. ñi ngay content ci momit yalla eh, yalla fay ko mhm, mhm. legi sonna si kon lool rek moy tim waaw léegi nag da ngay gis koo xam mhm. bu ñëwee ci jàkka ji war a tiim ciri njàpp yi maanaam fu njàpp di laal rek ah. moom dina fa laalale tiim bi léegoo léegi nga gis benn waay bu sant Njaay bu ñëwee day tiim ba tiimal tànk yi day masaa ba masaawaale tànk yi mhm. te du noonu ñàkk a xam waaye nag mhm. laajte ba mu amee dombaay ba laajte amee rek la ngant ak lay amatul woon yàlla daf ñu waxoon ni fas alu ahla dikri mhm. in kuntum la taalamun maanaam loo xabut rek ku ko xama nga fa laajte ko salaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. waaw bisimilah. na ngeen def. jàmm rek sant yàlla. maa ngi leen nuyu maa ngi leen bu baax. jërëjëf. ñu ngi lay fay. di leen sant di sant yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulilah. alhamdulilah. Eh, seen programme bi ngeen yoree nii. Hmm. kontaan nañ ci bu baax baax baax. jërëjëf. te yàlla dafa wax ne wala yukallifu llaahu nafsan illaa wasaha mm-hmm. la yukallifu nafsan illaa wasaha mm-hmm. yàlla moom sonalul kenn nit mooy sonal boppam mm-hmm. yaa jël enu bi nga xam ne attanuloo nga teg sa bopp waaye yàlla moom du moom du nattoo doomi aadama mu bind ko de nattu képp lu ngeen ne wax fii li nga xam ne ni ji mm. xam ne képp ku nga xam ne dégg nga ko war nga koy war nga koy toppatoo te nga xam diine bi nan lañ ko toppatoo nga laajte ko mm-hmm. yàlla mu ne kenn mënu koy topp te xamuloo ko wallaahi den koy xam ba pare mun koy topp mm-hmm. ustaas bi maa ngi koy nooy bu baax ñu ngi lay fay ak xaddiyam yu rafet yu set yi mooy xam ne mu ngi koy wax ak laaj ñu ngi koy laaj yi nga xam ne mu ngi koy teg teg baat yi nga xam ne moom la si war a tax mm-hmm. ñu ni maa ngi leen koy nuyu di baax di ko sant jërëjëf jërëjëf yal na ko yàlla yàggal suñu kanam amiin macha allah ci daraja rasuli sallallahu alayhi wa sallam wasallam sukuran sukuran sukuran yàlla fayal eh, nit ñu baax ñi nañuy kontaan yi mm-hmm, mm-hmm. am na solo Euh, léegi kon dangay gis ne euh, euh, ni ma la ko waxee noonu noonu rek lañuy ñuy léegi li doon waru gar nit ki nag jullit bi. Mhm. bu ko mënutee bu mu jàpp ne mun na ko. Mhm. parce que gi nga seetaane léegoo léegi mu jàngal la darsu boo xam ne jàngoo ko school. Mhm. seetaane moo lay won ni ni nga koy defee noonu la. jarul laajte soo bëggee laajte mun la jaru ko mun nga ko ni nga koy defee noonu la yow nag nga nekk ci noonu nekk ci noonu ba. bu kenn xamut yaa ngi musiba asalaamaaleykum asalaamaaleykum bisimila dafa am jafe-jafe am na am naa dafa sori asalaamaaleykum moom nag mënuñu déggante moom dafa mel ni dafa sori na ah, dafa xaw a waaw dafa xaw a sori asalaamaaleykum waaw bon yaakaar naa dina jéemaat mm. eh, waaye dafa mel ni waxtaani tiim bi mu ñu bugg a jël waaye dafa jaadu na nag ñu leeral ko salaamaaleykum waaleykum salaam You are talking to GRTS television. Halo. Halo. Halo. Halo. Ramadan Mubarak on GRCS. Hello? Bismillah. Bismillah. Bismillah. dafa am jafe-jafe pour dégg waaw am jafe-jafe mm-hmm. eh, li maa wax foofu rek mooy ne nekku ne kum neex rek bu la neexee tiim wala bu la neexee jàppa am na sarta balaa nga mun a tiim ah. <laughs> waaw soxna si loolu it lu jara leeral la waaw parce que léegoo léegi nga gis kuy tiim mm-hmm. te charte yi waral tiim dajewut ci moom waaw kay te tiim dafa am ay charte mm-hmm. eh, bi ci njëkk mooy ndox amut wóor la ne amuloo ndox. wóor la ni amuloo ndox. Mm-hmm. boroom xam-xam yi ñenn ci ñoom du ñëpp waaye ñenn ci ñoom ñu ne amuloo ndox mooy ñeneen fukki kër yi la féete ndeyjoor. Mm. kenn amut ndox. <laughs> ñeneen fukki kër yi la féete càmmoñ kenn amul ndox. Mm-hmm. ñeneen fukki kër penku kenn amul ndox. ñeneen fukki kër soow kenn amul ndox. Mm-hmm. ma foofu moom xaw ma fan laay du Gambia. <laughs> yàlla dimbali nañ ci loolu. su ko defee ñoom loolu lañ wax ni mooy ñàkk ndox <clears throat> su ndox amut bu boobaa mën ngaa tiim mm-hmm. walla boog ndox am na waaye nag ngànt gi nekkatul ci ndox mi ci yow la nekk mm. yaa ngi am feebar boo xam ni laal ndox benn boo laalee ndox mi feebar bi yokku ñu jël ki ci laaj bi asalaamaaleykum hello bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wow waw nagen def ñamma alhamdulillah bi neex na lool baax na lool man nag li ma doon laajte man tuubeen laa ok waaw waaye da ngaa gis ne dama amoon naa ustaas ma daan jàngal hmm. waaye da ngaa gis ne su ma julli dama tari bisimilahi rahmaani rahim waaw fatiha soo dama doon laajte ndax loolu baax na ndax baaxut <laughs> waaw baax na waaw jërëjëf koala bi loolu baax na lool mhm. comme nga ni nga ko waxee tuubeen nga mhm. góorgóorlu nga ba mun fatiha mhm. mun qul huwa allahu ahad nga xam ni mooy saaru tawhid eh, loolu baax na lool waaye da ngay gën a yokk góor góorgóorlu pour mun yeneen parce que ni nga def ba mun yooyu rek. Mhm. incha allahu looy gën a góorlu yàlla di la gën a dimbali ngay mun yeneen. waaw baax na tam mu xam ne Fatiha bee hul huwa bi duñ ko teg la ne ci làkka yëpp. waaw su fekkee loolu rek la mun. waaw maanaam Fatiha rek la mun ak xul wallaahu ahad. waaw munagul yeneen yi ci des. Mhm. rakka bu war a am Fatiha ak saar bu jàngee Fatiha ba pare mun na indiwaat xul wallaahu ahad bi. comme munagul beneen. mu indiwaat ko. rakka bu war a am faatiha rek mu yem ci faatiha bi kese ustaasam bi jàngal na ko loolu waaw su ko defee kon ustaasam bi gën koo dimbali rek mu mun yeneen saar yi ci topp mhm. su ko mu am lu mu jilee yal na yàlla amin ya rabbi amin dafa am ku nekk ci line bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum bisimilah. allo hello allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum asalaam wa ñu ngi laa ah? dégg nañ la. allo. allo ñu ngi lay dégg. allo ah? salaamaaleykum. waaleykum asalaam bisimilah. aja ah, na ngeen def. jaama rek alhamdulilah. maa ngi leen a ndokkale ci weeri koor bi. jërëjëf jërëjëf di leen ziyaare léegi mm. maa yëgal ni ngeen a ngi def bu baax a baax ci wér jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñun mu ne yàlla fay amiin amiin amiin yàlla xare na àjjana amiin amiin amiin léegi maa yëgal ne leen nagaara tëdd gi ñu nekk fi ñu ko seetaan waxtu bu nekk fan nga nekk noonu te programme bi na nañu bu baax a baax fan nga nekk waa jërëjëf eh, dafa mel dafa xaw a sori waaw <laughs> dafa xaw a sori mhm. Mhm. waaw su ko defee eh, soxna si eh, maanaam ki nga xam ni amut ndox waaw ndox am na waaye bu ko laalee rek feebar mhm. dafa amee sedd ci yaram wi mais bu laalee ndox mi loola daaneel ko wala boog am na façon ngi feebar boo xam ne bëggut ndox mi wala boog dafa amee gaañu gaañu. waaw ndaxte bu dee feebari sedd sax ñenn ñi dañuy wax ni na nga tàngal ndox mi. waaw soo amee jumtukaay na nga tàngal ndox mi. waaye buy gaañu la wartalaal ndox waaye gaañu nag boobu wartalaal ndox. Mhm. booba nag tiim mooy sa farata su fekkee nag xamoo nu nu ñuy tiimee nag <laughs> musiba day am. dëgg la asalaamaaleykum. bisimilah. allo. asalaamaaleykum. hello asalaamaaleykum man la dama eh, dama am question bu ma bëgg a laaj